love.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

الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله Allahu رسول الله محمد رسول الله رسول محمد رسول الله رسول محمد رسول الله رسول محمد رسول الله ولي الله تجاني شيخ تجان ولي الله تجاني Cheikh Tidiane Waliyullah Tidiane Cheikh Tidiane Waliyullah la ilaha الله محمد رسول الله شيخ تجان ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ تجان ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ تجان ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ تجان ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شاتجان ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شاتجان ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ تجان ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ تجان ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ تجاب ولينا لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ تجاب ولينا Jamali ولي الله شيخ تيجان ولي الله شيخ تيجان ولي الله شيخ تيجان ولي الله شيخ تيجان ولي الله سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم laaji moodu yaay ki la ñuy leerloo alaaji moodu yaay moodu yaay la ñuy leerloo alaaji alxaaji Moodu yaay ki ñu doy yoona ñu doy yoona ji ñu doy yoona ji ñu doy yow la ñuy leerloo alaaji moodu yaay ki ñu doy yow la ñuy leerloo alaaji moodu yaay ki ñu doy yow la ñuy leerloo alaaji moodu yaay ki ki ñu doy يضيع لنا ما اللاجب Sapa take them by your own. My enemy was just doye Mamadou nyegen sa pa tek dem bayoro Amare nyegen alaji modu yai ki doye yola nile Nyegen alaji modu yai ki doye yola nile Burger! Dem ba yo maam Gamare ñaam ba ca Saalum xamdi yaa ñu ko may yow la lii leen jigéenu yow la lii leen loo yaay sunu leer la alaaji Moodu yaay ki nu doy yow la lii leen loo alaaji Moodu yaay ki nu doy yow la lii leen loo alaaji Moodu yaay ki nu doy yow la lii leen ñu doy yow la ñuy leeroo. alaaji Moodu yaay ki ñu doy yow la ñuy leeroo. saa paateek dem ba yoro maam amareek ñay wacca saalum. lu ñu am de yaa ñu ko may yow la ñuy war naa ñu delloo la njukkal loolu lu war la war moodu yaay ki ñu doy yow la ñuy leer loo alaaji Moodu yaay ki ñu doy yow la ñuy alaaji Moodu yaay ki ñu doy am alaaji Moodu yaay ki wax waaye ñun alaaji Moodu moo ñu doy moom la góoru gëm naa ñu delloo jukkal loolu lu war la xalaay danaa la way danaa la kañ sa diine leer naa Mamadu gëm naa ñu delloo loolu lu war la dana la way dana la kañ sa diine leer na Mamadu gëm naa ñu delloo la ñu gël loolu lu war la Mamadu dana la way dana la kañ sa diine leer na diine leer naa sa diine leer naa ngegen sa diine leer naa sa diine leer naa sa diine leer naa sa diine leer naa sa diine leer naa sa diine leer naa sa diine leer

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم sant yàlla rek julli

na ngeen ma bàkk na ma kañ na ngeen ma fàttaliku man it ma tudd leen ci sama yërmande ak sama mbaax te doo leen ma tuddee ci barab ma tudd leen ci barab bu gën a kawe soo leen ma tuddee ci seen jëmm yi nga xamante ni amul ma tudd leen ci man mi am man yàlla loolu mooy njëriñu zikkar ndax zikkar doole ji mooy ñett rek a fi nekk mooy zikkar bi kii zikkar ak kii muy zikkar mooy ak dikru wa daakiru wal madkuuru ñett ñi rek ñoo fi nekk mooy zikkar bi kii zikkar ak ki ñuy zikkar kii zikkar kii zikkar mooy jaam li muy zikkar mooy turu yàlla bi ki ñuy zikkar mooy yàlla te ñoom ñii am na ci kenn koo xamante ni moom moo am mooy yàlla loolu moo tax doo ko tuddee moom yàlla doo ko bàkkee doo ko kañee ci turam moom nga tudd moom yàlla ndax tur du tàggoog jëmmam moo tax góor yàlla yi bi ñu demee ba xam ni jëmm ji du lu ñuy jot du lu ñuy jot moo tax ñu dem jàpp ca tur ndax leer na leen ni tur wi ku ko jàpp doo balay yàgg di nga dajeeg jëmm jël dégg ngeen wax ci loolu moo tax zikkar du doy la nit ñi nag xamaguñ ko ba tey ñi ko xam dootuñ ko dootuñ arrêté parce que koo xamante ni mënoo ko gis xanaa xamoon ne am na ñu bari ñu ne di jiiñ ne ay agent secret lañ fekk ñu agent secret ay indicateur lañu indicateur lañu mooy ay waxtaankatu place lañu ay bolotkat lañu ay demkatu stade lañu dañuy wax ak ñëpp ba koñ bu nekk loo fa xew daanaka dañ koy xam inspecteurs yi ñooñu lañuy ñuy jëflanteel ne leen diw la ñuy wër ko defee du la waxee ne la diw la ñun la diw jaar na fi sànq wala diw de doo ko bëggee jàpp diw ngay seeti doo ko ko jàpp ku xam fi fi diw nekk rek diw moomu doo fa toogee balaa deux heures de temps bi kooku dina fa ñëw wala moom kooku doo ko toppee moom dina dem kooku fa mu fa nekk noonu la mel nit yàlla akub yonent ak nit ku baax ñooyam noonu la mel rek yàlla ngay wot waaye ñun laa kii de doo ko toppee wala nga dem ca moom su fa fekkul tamit moom su jugee soo ko toppee fa mu dem fala falaw kooku nekk Maxtaar bu ngi leen tuuti waaw noonu rek la demee Cheikh Umarul Fuuti war soo demee ci rimaax premier chapitre bi loolu ubbi dane maa ngi sant yàlla ñoo ngi sant yàlla bokk mi nga xamante ni moo def wëli yëpp yi déedéet mu ne deful wëli yéen lu dul ni ay tegtal lañ yuy tegtale yàlla comme yàlla mooy ahadun samadun lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad kon kenn mënta jot ci moom te moom bëgg na ñu jot ci moom ci yërmande mag mbaaxam moo tax mu jël ay yonent ngir ñu jot ci moom ba yonent yi jeexee mu jël ay awliyaaw wëli yu loolu rek la wëli yu tamit lu mu bari bari maqaama li muy defaree ay njabootam mooy zikkar da lay boole tur wi rek tur wi du la ko joxee nga jàpp ko borom tur wi balay yàgg di ngeen jokkoo tur ku dee sax ku ko jàpp balay yàgg borom dikkal la kooku maraag nag ki nga xam xamante ni mooy xayul xayum mooy yàlla moo tax yoonu yàlla amul yàkkamti yaa ngi ci moom moom lay dégg bu baax yàgg-yàgg yërmandeem dina feeñ yal nañu yàlla boole dimbali donc loolu mooy njariñu zikr zikr bu caaxaan te soo yàggee nekk zaakir di zikkarkat di dem ba benn moment da ngay mujj jaxasoo ak tur wi te tur wi wax naa la ne la tur du du tàggali ko ak borom jeex na loolu moom loolu la fanaaw keroog Cheikh Sarr mii dafa ñëw ma ne ko euh, chauffeur lan mooy chauffeur bu bu mën dawal fii la toog fii mu ne moom chauffeur bi nga xamante ni moo otoom benn lañu <laughs> kii dawalkat la yëngal na bopp bi xam na li mu ne mooy ma jóg foo jëm. foo jëm kaay dama laa soxla tuuti après bu toogal dañ ñu àggal kaay pare nañu damay damay tëj rek ma nga euh, Cheikh Sarr ne ma chauffeur chauffeur bi dàq dawal mooy ki nga xamante ni moo ko otoom dañoo def euh, Sow baylo daaw ñëw na fi driver la dawal la Fall ko jox bi dafa dawal tuuti rek daal ne ma bàyyil ma wàcc dugal na vitesse yi di ba embrayage xaw ma leen koy wax defar dafa dawal quelques mètres rek daal di ne mbay kay jëlaat sa oto mu ne ma kii borom moo ko mën a dawal pourquoi parce que moom oto bi du sëqatee lu mu def xam na ko moom it oto bi day dem ba mel ni ku def fusion ak moom dina ci def yoo xamante ni keneen koo ko jox du ko mën sax yëkkati waaw zikkarkat noonu lay dem ba mel ci zikkar mooy li may wax dangay ngay dem ba nekk jëmmi zikkar yow waaw gars yi su la rombee ci mbedd bi mënul laa woo lu lay wax lay laay lalaa la ñëw loolu ba ko kon yow dem nga ba nekk jëmmi laay laay lalaa mooy la sekk doon wax yàlla ko yàlla yërëm wax ju garaaw la mu ne gars yi seen wilaaya ci seen i dañ koy def mu ne waaye na sen wilaya ci sen école la nek da wëlu yu moy comme doo ko gisee fàttaliku yàlla gars yi seen taalibe ngay gis jëflanteeg ñoom fàttaliku yàlla mu ne safina nag do guissé sen école rek fàttaliku ko yalla kooku ko mo bar sax yalla na ko yërmande yalla tek ko lim dan téra alaj mohammed Ndieguène diko jox fi ay mew ak warga diko jox wërsëgam yalla nako yalla nek na yalla bok ak maam alaaji bar sax waaw donc loolu rek mooy yëf yi euh, te yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam waa aljanna benn rëccu rek la am benn rëccu benn regret la ñuy am mooy lan benn moment bu ñu toog ci kaw suuf te tudduñu yàlla noo tax yonent ne sabaqal mufarridun mu ne raw na si ñi ñi euh, nga xamante ni dañuy wéetal yàlla ñu ne ko wamal mufarriduna ya rasulallah ñan ñooy ñan ñooy wéetal mu ne mooy zik azzakirun zikarkat yi mu ne yowmal qiyaama ñooy ëpp martaba ñëpp ñu ne ko waaw lu tax mu ne julli am na heure woor am na heure azaka am na waxtu dem màkka am na heure waaye zikar amul heure te doo demee ba zikar sa làmmiñ ba làmmiñ bi sikkar day ba day jox relais bi xol bi xol bi sikkar su xol bi demee ba mokk moom it day jox ruugi ruugi su demee ba mokk jox sirru bi sirru bi du demee ba mokk jox sirru sirru bi muy dem ba fukk ak juróom martaba kooku ñooñu ñooñu ñi am dawaamu zikri mooy ñi nga xamante ni même doo leen gisuloo kurus seen seen compteuru zikkar ngi dem yan ci yàlla boole dana sax leen ci rek te kenn jàppul lu gën li ñu yor mooy laa ilaha illallah te laa ilaha illallah li ci garaaw mooy secret ci boppam moom ci moom xam nga léeg-léeg gars yi ñëw fii di tëjoog man di ma laaj secret beeg lu nekk man leen secret bi ci boppam mooy laay laay la <laughs> dégg ngeen wax bi mooy laay la seen maam saa yaa liggéey loolu la ñu waxoon seen maam saa yaa liggéey wallaahi loolu la waxoon fii ci exposition bi mu ne lan do mu ne cultivateur boobu ba muy faatu lu mu wax doom ya ne leen bàyyi naa leen richesse bu dul jeex mooy suuf si gas leen wàqi leen liggéey leen di ngeen dajeek moom ñoom nag dañoo yaakaar ni lu mu fa suul la njëkkati li mu leen bëgg wax mooy nangu leen a ñaq rek nangu leen a sonn nangu leen a liggéey fekk yéen a koy def doo leen torox doo leen am benn soxla da ngeen fi may waxe waaw mbir mi léeg-léeg dañ koy wër fekk moo ngi la jege fekk moo ngi ci yow fekk sax yow

comme ni yarkat yi di def ak seen jur gi nga xamante ni sa moto sax dañ koy xàmmee ak sa oto waaw sa waaye ngi nii fu mu dugg duy xool peinture bi dina xam ndax kii ku aay la wala kii day taxawaan daaw bi am na benn at at nga indi fi waa jaxaw est-ce du bii sax jaxaaw la ah du bii waaw jaxaaw la woon dafa dugg rek daal ne kii aay na moom mii daal kii mën na dem mën leen li kii lu muy wax gars yi ne ma du ah, waxee aay na rek aay na hmm. nit da dem ba def nii ak sa yëf waaw loolu loolu nag yàlla nañu ko yàlla defal yàlla nañu yàlla boole dimbali boole ñu jàppale boole ñu suturaal euh, dañuy wax ne nit ku nekk bis bu nekk iblis sooy tëdd di nelaw moo tax ñàkk ñàkk léemu ñàkk muslu baaxul moom nekk ci ay bàkkaar ci bëccëg ñooyam parce que sooy bàkkaar bëccëg yàlla du la teralee yeewu fajar yeewu fajar teraanga la loolu yàlla yi ku ci juum ni la yàlla di xañee mooy da day da lay roof nelaw mooy seen punition ma yàlla jëkkal maa ngi tuub roof gëmmentu ba doo mën a naafila guddi soo naafilawul rek nga xam ni finition la mooy bëccëg bi am nga loo wax wala loo def wala loo juum dégg ngeen wax xañ la naafila guddi hmm. waaw doo tëddee di nelaw iblis dafay am na ay buum yu mu yor sa cerveau bi fii Ah, moom lay takk ñetti takk takk benn ñaar ñett moom lay takk ci yow léeg-léeg nga gis nit naan damaa fasoo dañ mel dañ maa liggéey takk-takk yooyu la waaw ah, day mat mille quatre-vingt-quinze yaakaar naa par at loolu kum jàpp da ngay alko waaw ñu ne yonent nag ne loolu ni ñu koy daggee mu ne soo yeewoo benn dagg na so yeewoo ben dagg na soo jugee benen beneen so na soo julee benen raaka beneen bi dagg na léegi nag du demee du tak cerveau bi ben at ñaari at ñetti at ñeenti at muy tak di tak di tak di tak da ngay dem ba da ngay mujj di yalla hmm. lepp lu bon da lay yomb lepp lu lepp lu bax da lay jafe موي نيوني الله ختم الله على قلوبهم, قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم نن يا الله انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون وار لي نياك لينا وار دي تي دني غنا ييس غنا بون دان ان شاء الله مسل باك بوم يوي نانكاي داغ نانكاي داغ سو ديمي نك با تاك لا تاك لا تاك لا تاك تاك ba yow sa yeewu fajar xam nga fajar gën a rëcc hmm. guddi gën a rëcc foo koy dabaatale hmm. moo tax mu indi ñu laa ilaha illallah hmm. laa ilaha illallah jaasi la yoo xamante ni heure boo si karee dagg nañ benn buum soo si karee ñu dagg benn buum soo si karee ñu dagg benn buum buum yooyu du xësee ba dagg ba jeex ci yow sa kiiraay yépp sa diggante ci sa borom dañ na sa bakkan dee sa ruu dund xam-xam yi nga amoon yépp démb dellu siwaat jokkoo ga nga jokkoo woon ak yàlla ala bi rabbukum ga nga fekkee woon da nga koy témoigné waat day nekkaat day ñëwaat xam-xam yu yëpp di kat ci yow loolu la ñuy wax fatu yàlla nañu ko yàlla yàlla doolu sutura waaw yal yàlla doolu sutura yal nañu yàlla dimbali boppam dama doon góorgóorlu rek te bañ di fanaanal mamalaaji radiyallahu anhu daanal fanaanal njuumte loo juumee rek mu wax le na la lii bu ko defee ci waaw moo bàkkaara bu ko fanaan gaawal jéggul njuumte gaawal jéggul waaw erreur gaawal jéggul àq gaawal delloo bu dee lu bon na gaawal dindi ko bu dee sa xol sa xel sa xalaat dindi ko gaawal parce que le fait mu toog sa biir xol lu yàggee musiba day am iblis day dem ba am place ci yow su egsee ci yow day mar sa xol iblis du maree sa xol nag alku nga yàqu nga xam nga xaj du maree bool nu ñu koy def dañ koy raxas juróom-ñaari yoon ak suuf juróom-ñaareel bi ñu raxas ko suuf iblis du maree ci xol Cheikh Omar moo ko jàngale xol boobu dafay laaj tarbiya liggéey bu metti la laaj mm-hmm. waaw leen ci yàlla mosul ñun yàlla na leeru yàlla tàbbi suñu xol ak tàbbi suñu ruux ak suñu siru ba du ñu bëgg lu dul yàlla du bëgg lu dul rasulullah du bëgg lu dul ku bëgg yàlla ku bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu rek moy yef bu rebe defee léeg dina ci baax ñu bàkk yalla sans programmer que yalla tamit dañuy defal ay xéewal te duñ ko programmer wala bok sant bi léeg ñu dañ lan moo waral lii bàkk sant yàlla rek kañ ko rek ngir mu doon ñu ay xéewal doon ñu ñuk gën ñoo xëcc ci boppam ndax mooy moom mooy gës bu jaami ci moom moo leen di ñor bi waaw yàlla muy xëcc ku ko neex sëriñ dalay teg ci yoon rek jox lay awraat jox lay zikkar waaw waaye kii xëcc mooy yàlla ki lay xëcc ci moom yàlla ñu yàlla xëcc ci moom waaw yàlla ñu yàlla ñoddi ci moom ñoddi gu neex xëcc suñu xol ak suñu ruux ak suñu jëmm jëm ci moom te buñ demee yàlla bu ñu wëlbati yàlla bu ñu wëlbati yàlla nañ sax di defe jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam barakallahu loolu rek la woon

su yàlla nangulul kenn dana naa sama jaam yi bàyyi seen kër ñëw fii ngir sama jëmm nangul naa leen jeex na te benn julli bu nangu ak teraanga àddina ak àllaaxira la sànq bi ñu jullee gee ba pare li may naafi la euh, sama sujjóot bi yàgg na lool li ko waral dama ne ah man est ce que sax du sama jëb yi maa ngi ko teg ci jëwu ci ci fi ko Alaaji Ahmad Baro mu sa teg mm-hmm. billaahi mm-hmm. man su may wasifu bii loolu moo tax léeg-léeg démb sax daal na ma damay wax ba caag daal ne miig noppi parce que dafay mel ni rek dama naan xoolal mag ñi Mame El Hadj Ahmad fii la daan toog di wasifa Mame El Hadj Malick fii la daan toog di wasifa Mame El Hadj Rawane Ngom fii la daan toog di wasifa Mame El Hadj Abdoulaye Niass fii la daan toog di wasifa fii du ma ko xalaatee nii dootuma mën a yëkkati benn kàddu damay yu bëri mooy dugg sama yaram beeg sama xol beeg sama ruur waaw tey bi may julli loolu la ma dikkal ma ne ah soo demee de moo tax jàkk ji man fu nekk laay julli léeg-léeg ma dem fii léeg-léeg ma te am na place yu neex nag yu am ngelaw ventilo yu baax kii fa lay taxaw toujours Amadou yeewu la gis naa foofu lay taxaw toujours ay ay ay ay ay barab yu baax lañu leen tey sëñ bee soxla wax leen loolu tey tey tey tey nan la jéggal rek daaw nee nan la jéggal rek sëñ bee soxla ne ko neen maa waraajee ma woo kon du ma kenn ndeysaan am na benn livre maa ngi koy bind maa ngi ko tuddee les appels du roox waaw mooy nit ki du toogee ba yàlla woo ko nan la koy xamee nan la koy yëgee nan lay delloo ci yàlla mooy livre bi may bind les appels parce que léeg nga toog yëpp ni dangaa war a dellu ci yàlla mooy comme ni ngay toogee gis appel xam ne diw moo lay woo léeg-léeg yàlla da lay woo nena yow irji'i ila rabbiki delu sil ci man fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turjaun irji'u waññeeku leen ñew len ci man waaw yoy ma ngoy ci kii soo na dina dimbali nit ki parce que lele nga gis ko xamanteni eh, yow xadara yalla ba ngi lay woo ngay tok di nelaw rek yalla ngi lay dencal yërmandeem ngay tok di nelaw yàlla ngi lay dencal një njëggalam ngay toog di nelaw yàlla ngi dencal ay xéewalam nga toog di nelaw léeg-léeg nga dajeeg nit ne la mais vieux yow diwoon ngay seet xamoo lu mu lay def ne ah non man dama jàpp rek mënu leen di yaay kooku nee la lay fan yëpp sa numéro mu laaj mais su loolu soo ko xamoon laal li nga bu yàgg noonu la mel lu indi wax jooju ma ngoog li tey bi may sujjóot billaahi loolu laa wax sama xol ma ne xoolal fii li fi wàcc ay surafaaw ay sëtu yonent sëtu Mawlana Cheikh Tidiane ay njabootu Cheikh Mourou Fouti Cheikh El Hadj Mari Cheikh El Hadj Abdoulaye Niass ak ay njabootam nu mu tuddati maam Thierno maam Thierno Kanji góor gi góor gi Euh, Amar Ndiaye dégg nga euh, wëlu yi ngay dégg yëpp ci réew bi wasifa nañ fi julli nañ fi maanaam yàlla na yàlla def tey sama sujjóot bi dajeeg sujjóotu kenn ci gaa yu baax yooyu wallaahi loolu laa doon wax yàlla xam naa ni loolu du amee lépp baax waaw maam sëñ Tuubaa waxoon na ko nee na alaaj Ahmad borom fu mu dëgg tànkam ku ko dëgg yàlla jéggal la xam nga jullee bi rek la ñuy wax waaye loolu loolu tamit ci la bokk. waaw fu dëgg tànkam ku ko dëgg yàlla jéggal na wala yi fii du sol daal xam nañ li ñuy def daal yu tànk yooyu la wër mooy léeg-léeg ngay wax dara te xamuñu li ngay wax xamuñu li ngay wax te dëgg pour mm-hmm. ah, xale mag mën na ko for waaye. xale tamit xale bu mag mën na ko for fii suuf si dafa am ñu koy wër suuf si ak jaww ji dañ koy wër yal nañu yàlla dimbali yal nañu yàlla boole jàppale kon nag moom kon nag ñu foofu kàddu yi kàddu yi soññe rek la woon ci zikkar fonk jàkka fonk wasifa mbooloo te di te di bàyyi bàyyi xel foo leen toll bañ a fàtte yàlla. man de góor gi loolu ma dénkoon. dana ma bul tëdd benn minute te fàttali ko yàlla. yàlla. Hmm. lépp nga. yàlla nañu yàlla dimbali yaa sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñaan bi yonent bi ñaanoon yàlla nañu ko yàlla defal allahumma aftah li dikrik um, xol dafa am ay ay ay nopp noonu la ko yonent waxee ay déggukaay yoo xamante ni du dégg lu dul sikkaar am na jaam yoo xamante ni yàlla day da koy da koy activé day dox am ñoo xamante ni seen bos dafa tëju dañ ko waaye am na ñoo xamante ni seen bos a fond la high level ñooñu du ñuy dégg alxuraan muy rot seen xol du ñuy dégg turu yàlla muy rot seen xol du ñuy gis nit yàlla di ko sopp du ñuy gis lu baax di ko bëgg yàlla ñu ko yàlla ci bis bi ak waxtu wi ak saas جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم لما سبق الناس الحق والحبيب والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ñu ziyaara bu baax sunu papa di maam ci ñu bari fii El Hadj Abdoul Aziz Dia turandoo ngi koy ziyaara bu baax di ko keroog bi may wax ñoo ngi nuyu waa ñi nekk ci internet bi ca kër mbir moom lay junj jotaay bi dafa xaj xat koy nuyu bu baax ndax moom cousin wu xalifa bi moom ak euh, papaam ak maam Amidia ñoo bokk benn baay Boubacar Dia moo ko jur Amidia moo jur Serigne Mouniru Amidia ak Boubacar Dia ñoo bokk benn baay Ahmed Dia mooy seen baay hmm. mu koy ziyaara di ziyaare mbokk yi ñu suivre yëpp partout dans la moom xam naa ne ñun li ñuy dañuy wax ne sonn nañ waaye ñoom it son dañuy sonn ndax lu ñu fu ñu nekk ñuy ànd ak ñun di ñu suivre ba keroog muy jeex muy ci fii ak ci Facebook ak YouTube laay bëgg a wax ak Instagram ak ak euh, WhatsApp ak yeneen plateforme yëpp yal na yàlla fay ñëpp yiw bi jaay Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ziyaar nañ ñëpp sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah papa way neex na. ah trop way neex na.